nu tëral ngir mu saytu nekki ni doomu aadama yi te ñu jëme ko ci ñépp te duñ ko jagleel kenn conscience benn xeetu yëg-yëgu biir la bu nekk ci nit kon gis nga ñaari baat yi duggante nañu ndax loi buñ ko waxee phénomène social la te ku wax société wax doomu aadama kiy tëral loi bi nit la kiñ koy appliquer ci kawam nit la kon foofu yéeg-yéegu doomu aadama jàpp naa ni war na fa am place ban place la fa war a am ndax am na laaj bu ñu laaj ku gëm tëralinu démocratie laaj bi mën na la jaaxal ndax dangay defe ni amul place te moo di ndax lu waa lu nécessaire la lu mënul a ñàkk la maanaa pour ñu tëral penc bu tegu ci màndute est-ce que faw nu tëral loi wala am na yeneen yoon yu nu war a mën a jaar ba teg penc mi ci teguwaay am na ñu wax ni waaw loi mënul ñàkk ak seeni lay am na ñu wax ne lu loi mën na ñàkk ndax musiba la dana ko sax war a xeex am na ñu wax ni mal la lu bon la waaye lu bon lu mënul ñàkk la c'est un ku ci nekk ci kuréel yooyu am nga say lay bindkat bu ñuy wax Ovid ci hypothèse mu imaginer doomu adama ba muy sog a dikk nga xam ne ku bees la boobu soxlawul système gouvernement yi ndax xelam mu set te leer te sell ci la doon doxale yéppam mu wax ni boobu nit kooku lu muy wax ak lu muy def yépp lu baax lay doon moom lay yéene moom lay jub booba ay kàddoom kàddu yu simple la te gàtt waaye kàddu yu dëgg won la ñu gis ne loi nekul won lu nécessaire soxla wuñ ko won amul won ay tribunaux do gis ku porter plainte pour di laaj bi droit wala bële mu wax ne booba loi bi nekk tey sous forme de texte boobu ñu ko bind ci dënnu doom adam c'est-à-dire que booba lépp mu ngi dox ci jàmm problème amul ndaxte booba conscience moo doon saytu lépp euh, sans ñu ànd ak moom ci ni mu imaginer nekkinu doomu aadama ca jamono yo ak liñ ci wax mais baatu conscience bi mu bi mu tudd askane ku nit ñun ba fi ñu toog defe naa ne werante amul ci ne nit am na lu nekk ci biiram luy wax ak moom bu di ko yëg moo xam nag dina def la mu ko wax wala du ko def conscience boobu ba léegi mu ngi fi est-ce que dañuy jàpp ni nit war naa sàmmoonte kàddu biir boobu rawatina bu fekkee ne mooy tëral loi walla moo koy appliquer wala mooy doxal réew wala dañuy ànd ak Machiavel bi doon dénk ñiy saytu réew ne leen su dee da ngeen waxanteeg seeni peuple ci biir réew mi ak yeneen i peuple yu ngeen séqal ci bitim réew ngeen siñanteeg ñoom ay pacte bis bu ngeen yégee ni pacte bi safaanoo na ak seen intérêt personnel sañ ngeen ca génne parce que ñi ngeen ko séqal du ñu ay sàmmkati kóllëre te bu fekkee ne fecc kóllëre fi sës kon bu leen ci kenn jiitu yéen gouvernant yi est-ce que dañuy jàpp ni doomu aadama kàddu biiram la war a déglu wala loolu Machiavel la war a wax la war a dégg xam nga li tax mooy ñi bañ nekk loi warul nekk bokk na ci fiñ ko teg dañu ne luwaa bi ñu samp pour mu saytu mbiri pénc mi moom mooy soppeeku nekk yet wi nuy dóore pénc kon jàpp naa ni est-ce que du seet leneen luy tax mu yemale loi ba raay yi ñu ko teg pour mu yóbbu fa société bi mu mën fa àgg kon mu bokk na ci nan lañuy def ba sóoraale intérêt ñëpp ci bu ñuy tëral loi bi te loi buñ ko tëralee dañ ko war a appliquer nan lañuy fexe ba appliquer ko application bu màndu nan lañuy fexé buñ koy exécuter ñu exécuter ko exécution bo xamné du neenal tedd ngay doom adam kon lolu lenn la ci chose laaj yo dinañu may ñu a ana lan mo conscience ak loi lool rek lañ doon pour problématiser thème ah comme dañu wax ne xala gi jox ko ki ko yet ndax moko gëna xam té liñ fi jot juñju ci CVM wané na ni jekku na tem bi dañ koy jox kàddu gi di ñaan Yalla ubil ko deñum feccil ko meñam léralal ko xelam professeur kàddu gaangi nonu bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam nuyu bi gëna a sell di nuyu jullit di leen ndokkeel ci weeru koor di leen massaw ci coono yi di leen gërëm ci seen taxawaay di rafetlu seen pastéef nuyu yooyu ak ngërëm boobe ñu ngi ciy jiital sëñ Moustapha si mi nga xam ni moom moo jiite kuréel gi di daayira mustarshidin wa mustarshidaat di ko sant ci lii mu ñu ñaan ñu ñëw bokk ci waxtaanu tey wi di la nuyu itam yow oustaz fay yow mi jiite suñu waxtaan wi tey ci sell yu leer yi nga jiital ci waxtaan wi ko ci ak jëme ko ci li nga xam ne lii moom lañuy ñuy waxtaane tey maa ngi ndokkeel itam daayira bi jiital ci kilifaam ci université de Ramadan bi nga xam ni bii moom ay atangi ni ngeen koy def mu nekk jàngu koor bo xam ni bii kala tubaarkàlla rafetlu nañu lol xam-xam yi fi joge ak njariñ yi nga xamni yi ñi fi ñew moom lañ ci jëlee ni ko waxee bi ñu ma ñaanee ma ñëw bokk ci waxtaan wi sas yi nga xam ne wii moom lañ ma sasoon ma war koo bay moo di loi et conscience maanaam yoon ak xel am na ñeneen ñoo xam ne ñii conscience ñu ngi ko tudde ngëm ci wolof am ñeneen ñoo xam ne ñii tudde nañ ko kàddu biir mën nañ cee yokk sax yëg-yëg bi nga waxoon léegi li am ba des daal xam naa ni xel bu ñu ko jaalewul ak xalaat war naa nekk loo xam ni lii mën nañ cee jàpp ndax nit boko defé lo xamni li yëg-yëgu biir mayu ko ko dafa naan loolu kay xel du ko xalat e bu fekente ni itam dafa jaxaso ci biir xelam daf nan dafa am ñaari xel e yoon nag moom ci boppam tëralin la woo xam ne wii li koy tëral mën na bari te wuute ndax yoon jóge na ca suñu borom muy téere yi nga xam ni mooy yi mu dénk ñi mu yónni yoon jóge na ci buur muy tëralin yoo xam ni yi daf ko def ngir gëna yaatal nguuram wala gën koo dëgëral yoon jógane ci kuréel goo xam ni gi askan wi moo ko fal tànnal ko boppam mu nekkal ko fa yoon jóge na ci ci itam dogal boo xam ne bii askan wi ci boppam moom moo ko sàkkal boppam waaye ak fu manti jóge yoon moom yoon la rek maanaam dogal la boo xam ne bii dafa ëmb ñépp bu ëmbul lépp itam ëmbul fépp itam ëmb na ñépp gannaaw yoon yàlla nag bi nga xam ni moom dafa ëmb fépp lépp ak ñépp yoon ay la yéwén xanaa kuy dund yow dong daal yaa wul yoon dañuy wax naan Robinson Crusoe ba mu demee ca dun ba nekk fa moom dong soxlawul woon yoon waaye bu amee nit tuuti rekk faaw ñu seet diggante nit ñi def fi ay tëralin ba seen nekkin mën a sell ndax itam ñàkk am tëralin yooyu mën naa indi jiix jaaxa e mën naa indi itam ay jafe-jafe yoo xam ne yi mën naa jur ay tooxi doona conscience nag xel moom lëf la loo xam ne lii buur yàlla def na ko ci ku nekk ci ñun xam naa suñu ko seetee ci foofu liñ naan kàddu biir nga xam ni moom mooy waxtaan ak yow bu kenn nekkul ak yow am na solo lool nit dina jóg di def lëf bëgg ko jaarale nii kàddu biiram ni ko ah nee la de fekk na nii nii yu xol la nee nee yu xel la xol moom baax na neex na waaye ku ko topp rekk am ci réccu xol nag xel nag moom diis na metti na waaye ku ko topp itam doo ko rëccu kon mu mel ni lépp loo xam ne lii ñu ngi koy bëgg a def suñu kàddu biir moom moo ñuy gindi a ah, ci kaw gindi boobu nag du tee ndax nit yi neen lañu ñu mën a juum ba topp suñu xol bàyyi suñu xel walla suñu xel jaxasoo ñu def loo xam ne lii xañ na gënul loolu tax na ñu ñaan yàlla may ñu xel mu sell gindiñu kon mu mel ni diggante yoon ak xel diggante la boo xam ne bi bu yaatu la bu jaxasoo la muy ci wàllu xalaat muy ci wàllu jëf maanaam muy ci wàllu théorie walla muy ci wàllu pratique ci wàllu xalaat diggante xel ak yoon nekk na lool mi xam-xam yi musuñu ci génn di ci xalaat am na benn savant bu am solo boo xam ne bii dafa mel dañ naan européen la te fekk na moom du européen dañuy xalaat ni sax du jullit fekk na jullit la muy Averroès bàyyi na ci xel lool diggante xel ak yoon bari na ay boroomi xam-xami jullit yoo xam ni dañu leen di nëbb ba yàlla def na ñun ñu bari duñ leen xam te fekk na li ñu def ngir yokk xalaatu àddina bi lu am solo la am na benn téere bu tudd les grands savants musulmans oubliés buy wone borom xam-xam yu bari yoo xam ni ay jullit lañu te fii mu ne boolaajoon ci saal bi xañ na fukk wala ñaar fukk ñoo koy ñoo leen di xam mu mel ni itam kon bokk na ci jàngat yoo xam ni war nañ koo jàngat ngir gën a xam suñu bopp ñu bàyyi xel ci jàng boroom xam-xam yooyu ba naw leen ni ñuy nawe ñi ñu xam ne ñi bokkuñook ñoom yoon wala sax ñu nawee leen lu ko ëpp e du moom dong nag moo xalaatoon diggante xel ak yoon cib gàttal ak ci wàllu xel ak xalaat maanaam ci wàllu théorie mën nañ ni nit ñi daal mën nañ leen xàjjale ñaari daara daara bu jëkk bi moo di bi nga xam ni bii dafa ni xel moo jiitu moo féete kaw yoon moom ci moom la xal ci moom la yoon wara dem di jëggaani ngir nekk yoon te saa yu bàyyee jëggaani ci xel yoon woowa nekkatul yoon ba nit xelam war na koo may mufipu fipu gàmtal yon woowee ndax yon woowa andatul ak xel ñooñu ci walu batu nasaran mom lay ñuy les théoriciens du droit naturel amna na boo xam ne bii ñoom dañu ni ay sax xel moo jiitu yoon ay la sax yoon war naa jëggaani ci xel wante nag gannaaw xel nekk na loo xam ne lii nit ku nekk danga koo am ndax wolof nee na ku doon jaay xel ca marché ba mu lam ku ne defe nga ni ya a am xel ñi ci que et gannaaw dit la mel tegginiwul ñu que yoon ci xel bu yoon que ci xel positivistes ñu ni ñoom li leen ñor moo di yoon wi nga xam ni wii donte buur bi walla kuréel goo xam ni gi dañu ko fal moom moo ko dogal yoon woowu ku nekk war na laa war na nekk loo xam ne lii waruloo ko jalgati ñooñee nga xam ni ñoom lañuy wax positiviste ci fànn boobu dem nañu bani su fekkente ni yoon nekk yoon woo yoon woo xam ne wi jubadina nit amul sañ-sañu bàyyi ko la ko war mooy lu mu def mu ànd ak yoon woowee diggante xeex bu metti bi nga xam ne bi àddina bi yépp ñoo ko bokkoon bu jëkk ba première guerre mondiale ak ñaareelu xeex bi bari woon na ay boroom xam-xam yoo xam ni noonu nañu foofu la ñu bokkoon maanaam positiviste la ñu doon mel na ni sax ñoom bokk nañu ci ñi nga xam ne ñi ñoo dëgëral nasisme maanaam Hitler ndax gannaaw ñoom dañ ni yoon moom donte ki ko dogal sax def na ko ci juba jubadi dañu ko war a sàmm kon bi Hitler ñëwee def lu ko neex ñu ni waaye war nañu ko sàmm

yoon dafa war a ànd xel walla bu ñu àndul nit ki moom lan la war a def et ci kaw loolu mën nañ ni ci jëf maanaam en pratique gisee nañu ñeenti fànn yoo xam ni yi xel ak yoon bokk nañ ci yenn saa yi ñu ànd yenn saa yi ñu wuute yenn saa yi ñu féewaloo li ci gën a am solo ginnaaw dañuy ñëw ci suñu àddinay tey ji moo di xel nàcc na ni moom yoon war na koo may su fekkente ni yoon bi ñu dogal jubul dafa dëng ce ko mun la dàq itam mu mën a fexe ba rëcc ca yoon woowee maanaam exception lola moo jur li ñuy wax objection de conscience objection de conscience maanaam fippu ngëm moo di su fekkente ni yoon wi tëral na ni Ibrahima Fall war ngaa def lii war ngaa def laa war naa am sañ-sañu waxuma ni yoon wi na dañ de waaye bu ñu ma ko teg fa mu jóge nag boobaak léegi xaw naa yàgg vers les années 1898 ci Angleterre nguur ga dafa tëraloon ni wayjur yi war nañoo ñàkk seeni doom am ñu ca tonet ni ah ñun dey loolu ànduñu ci ndax gisuñu lan moo war a tax ñuy ñàkk suñuy doom kon nag su fekkente ni mënuñoo tegg yoon wi itam nañ ñu may ñun ñu waaf mu romb ci suñu kaw ca njëlbéen ga maanaam ca commencement ba nanguwuñu woon loolu waaye biñ demee ba ci kanam

bari na nag politique maanaam bañ a nangu ci wàllu politik ni yoon wi dal na ci sa kaw dem na ba am na docteur yoo xam ni seen fippu ngëm ñu ngi ko teg ci ni ñoom donte docteur lañu donte yoon wax na ni mayna nitni nit ñi ñu def avortement ñoom seen and mayu leen ñu ànd ak avortement ci biir docteur yi am na ci ñoo xam itam nee donte yoon na ni nit bu defee accident wala mu feebar bay bëgg a dee war nañoo man tebbi xool ba ak res yi wala leneen jox ko koo xam ni kii dafa feebar ginnaaw moom mi ngi dund ñu ni ñoom duñu ànd ci loolu ndax seen ngëm mayu leen ñuy xotti nit donte day bëgg a dee dindi xolam dem di ko def ci koo xam ni kii dafa feebar te ñu yaakaar ni xolu ku ndaw kii dee bu ñu ko ko sampalee dina ko yokkal gudd fan am na ñoo xam ne ñi itam seen ngëm seen objection de conscience ñu ngi ko teg seen ngëmuk yàlla et xam naa ki ci jiitu moom ci suma xalaat kiñ ci gën a ràññee ci suma xalaat moom mooy Bilal ndax bi nga xamee ni bëgg naa nekk jullit teg nañ ko ay coono yoo xam ni luñ ci wax rek lañ ca bàyyee ko ëpp toroxal nañ ko dóor nañu ko def nañ ko lu nekk waaye la mu gën a metti gën a metti rek mu ne ashadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maanaam ngëmam ci lislaam jaral na ko mu jënde bakkanam lislaam boobu dee ci ngëmam moo ko gënal dund te du mën a gëm rawatina nag toroxal yi nga xam ne dañ ko doon toroxal ndax moom dafa nekkoon jaam mu boole ñaari mbir fippu ci wàllu ngëm ak fipu politique ci esclavage qui Amérique dans les années 60 70 am le mouvement des droits civils ndax man nañu ko fippu ngom.

waaye fipp goo gi dañ ko teg ni lii ñu leen teg jaaduwul ndax su fekkente ni dañuy seen ñu ñu ñi ak ñu ak ñu ak ñi te ñu ak Awa ko Gandhi ca jamono bi nga xam bi au début de du vingtième siècle 1905 1906 mi ngi def

ngëm am na solo lool bokk na ci itam objecteur de conscience maanaam fippu ngëm fipp goo xam ni gi dañu ko saxal ci wàllu politik bu wuute ak mouvement des droits civils Si vous tey Israël y a des soldats yoo xam ni ñoom de bañu soldats. Mais ils waaye nee nañu buñ leen doon été itam duñu ànd ak seen armée di dem ci territoire palestinien occupé ndax ànduñu ak occupation des territoires palestiniens ànduñu ak njaam gi nga xam ni gi Israël daf ko teg palestiniens yi loolu tax na doonte ñoom israélien lañu du ñu nangu bu ñu nekkee soldaar ñu yóbbu leen ci foofa loola law na law na ba am na yeneen réew yoo xam ni en Occident bari na fa ay objecteurs de conscience yoo xam ni soldaar du ñu nangoo nekk soldaar sax waxuma laa di dem di xeex nee nañ soldaar ak seen ngëm àndul ba tax na suñ leen jëlee ñu war a nekk soldaar dañ leen di wutal benn liggéey ci bureau ñu nekk ca bureau ba waaye ñoom nee nañ duñ dem nekk soldaar kon mu mel ni ngëm bari na te bokkul alors ñu mën a laaj nag ndax bokk na ci ngëm ak fippu ngëm lu mel ni jigéen yooyu nga xam ni dañuy muuru muuru boo xam ni bii doo gis ci ñoom dara te ñu teg ko ci lislaam ndax loolu bokk na ci Fipu ngëm loolu waxtaan nañ ci yu yooni yoon ci ni France yéen a ngi ni lu tu lola, dafa mel e voile bi nga xam ni bii julit yu jigéen ñi dañu ko daan def ci seen dafa leen a naqari ba ñu bëggoon taxaw ci loolu ni élève wala étudiant buy jàng bu tegee ci boppam voile dinañ ko dàq ba am ñoo xam ni ñii nee nañu woon donte dañ leen di dàq duñ dindi seen voile ñu nekk ca di wax di wax ba mujj ki nga xam ni kii mooy fa mbaxana nekke bopp maanaam tribunal bi gën a kawe ni ah ay la yéwén day ñooñu mënuñu leen a dàq ci seenum njàng ndax loolu discrimination lay doon maanaam xàjjeeg seen lay doon waaye bañ jógee foofu loolu taxul ñu bàyyi ñu ni kon ñi nga xam ni ñii dañuy voile intégral maanaam dañuy muuru ba kenn du gis lenn ci ñoom xanaa seeni gët ñoom bu fekkente ni génn nañu ci mbedd mi dinañ leen jàpp alamaan leen bokk na ci ñi doon waxtaane loolu ñuy est-ce loolu du fippu ngëm ah loolu nag pour tontu ci faaw nga xam ndax liñ naan voile intégral maanaam euh, muuru boo xam ne bii doo gis lenn ndax samp nañu ko ci charia wala sampoul ci charia eh, bu fekkente ni sampu na ci charia kon fippu ngëm lay doon waye amna na xamni xam ne ci charia voile intégral c'est un aspect culturel et non religieux Manam adak ak la caada la waye du charia lol ay xel la qui ak fait loi à conscience manam diggante yon ak xel mën nañu itam ndax bu ni Sénégal événement du 19 mars ndax nek nek na fippu fippu ngëm manam objection de conscience wala mouvement de désobéissance civile manam fipu go xamni ni gi teguñu ko ci ngëm ah li am ba des day mooy su fekkoonte ni ñi nga xam ne ñii nee nañu ak lu mën a am le 19 mars nañ manifester suñu dëgërul woon ca loolee ñu waxoon kon 19 mars du am est-ce que léegi mën nañ ni fippu ngëm la walla fippu leneen la loolu yëpp dafay wone

li wóor te wóor moo di suñu réew tollu na ci ay jafe-jafe yoo xam ni yi yoon may na nit doonte kenn la walla mboo mbooloo la yoon may na ko mu yëngu-yëngal doxu doxub ñaxtu maanaam démonstration kon mu melni ni ñu samp ko ci fippu ngëm ndax yoon ci constitution bi maye na nit ñi ñu def seeni manifestation maanaam yëngu-yëngal wala doxu ñaxtu e ginnaaw suñu waxtaan dafa nekk ñaari pàcc bu jëkk bi ngeen dégluma bi ci des ñu jokkoo xam naa li ñu bëggoon a wax fii yépp du mën a yem ci xaaj bu jëkk bi kon ci gàttal ñu jàpp daal ni diggante xel ak yoon nekk na loo xam ne lii lu am solo la rawatina su fekkente ni xel mi ñu ngi ko samp ci diine te defe naa loolu moo gën a ñor fii ndax ginnaaw université de Ramadan la ñu samp ko ci diine dina ci am solo et mu mel ni kon wax nañu Bilaal waaye soo seetee sax yonent yi yàlla yónni am na ci ñoo xam ne ñi toll nañ ci foofu xam ni bu ñu fippuwul woon fippu ngëm tooxi doone dina am ah Yuusuf ba mu wéetee moom dong ak soxna sa soxna si bëgg koo sànq su fekkoonte ni amul xelum fipu ci ngëmam kon loola mënoon na koo jural lu métte metti waaye ngëm gëmu gëm moo tax mi fipp donte sax mbub ma mu soloon soxna si fexe na ba xotti ko dem boole ko ngir ñu sànk ko waaye yàlla dimbali ko génne ko ci lolu jox ko cër bu mag yonent yàlla Ibrahima bi nga xamee ni bëgg na taxawal diineem jafe-jafe yu bari la jànkonteel ndax nit ñi dañu amoon lu ñu gëm te bëgguñu fa woon a jóge te moom mu wóor ko ni yàlla sol na ko digal na ko jox na ko tànn na ko mu war a leeral yoon wi nga xam ni mooy yoonu ngëmu yàlla et histoire bi bari na ay exemple yoo xam ni dafay wone ni mu fippu ngëm ci diine dafa am solo lool du nag faw ñu seet ndax loole mën na ànd ak jamonoy tey lan moo ci mën a ànd ak loo ci lan moo ci mun la ànd dinaa leen ko laaj foofu laay yem eh, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñu dellu di ko sant bu baax a baax xam na maa ngi seetlu ni macha allah dégg na wolof te loolu mu ngi jëm ci sax di jafe ndax fi muy waxe ngëm léeg-léeg mu delloo ko ci ngëmu diine léeg-léeg mu delloo ko ci ngëmu conscience waaye daal jàpp naa ni li mu wax tënku na waaye leer na waxtu bi mu ko joto joxoon sax jotu ko àggal waaye wax na ko ci biir ne li muy xaar ci public bi ñi ko déglu pour gën a ubbi ndax nee na thème bi thème bu yaatu la te te complex loolu xam naa moo tax mu yemandi foofu di xaar réaction yi ñëw am nañu fi nag benn liste intervenant bu dem ci juróom benn nit ak question écrite question bi dañ ko koy jox mu jàngatatal ko boppam directement en attendant que ñu woo intervenant yi euh, su ma doon jaaraat ci gàttal ci li mu wax doonte leer na am na tam benn laaj bu jóge ci internet bi bismillah moom ñëw na ak ñun ci définir ci wax nu lan mooy loi définir na lan mooy damir muy conscience te mu firee ko xel loi mu ngi ko firee yoon ñëw na ak ñun ci loi boobu lan mooy ay source am maanaam fan lay jóge wax na ni am na loi yu jóge ci yàlla mu jaarale ko ci yonent yi am na yoo xam ne buur bi moo ko rëdd am na yoo xam ne benn mbooloo tuddee ko commission walla comité moo ñu ñu wóolu tànn leen ñu am sañu-sañu teg loi wax na ni am na boo xam ne nit ñi ci seen bopp maanaam pëpp bi ñoo koy tànnal seen bopp ma jàpp ne xëy na dafay dellu ci li xaw a demee ni référendum ñëw na ci définition euh, la règle du droit même mu wax ni règle le buy le ñépp Manam buñ ko tegee c'est pour ñu dawal ko ci kaw ñépp ñu appliquer ko ci lu am solo la parce que ki jiite mbooloo mi loi bi dafa ak maanaam loi bi dafa lëkkaloo ak doole booleeg yeneen i sañ yi ñu ko jox dafay am solo loi bi direeku ci kaw ñépp tàmbalee ko ci moom tàmbalee ko ci moom ndax sàmm bi yet wiñ ko jox dañ ko ko jox pour muy xàjji jur gi waaye du pour mu di leen dóor di leen damm kon mu wax ni loi bi dafay nekk lu général lu mëtale ci nit ñi même bu fekkee ne mëtalewul lépp maanaam dafa bëgg wax ni loi bi ñi ko tëral bu dee ay nit lañu lu ñu xarala xarala mënuñu bàyyee lépp xel ba loi bi ëmb lépp faw mu am yu mu bàyyi waaye daal loi bi bu juddoo c'est pour ñu appliquer ko ci ñépp mu wax ni bokk na ci li luwaaw yàlla te xanaa mooy charia islamiye ci maanaam bu yaatu bi lu mu wuuteeg luwaa yi mooy bële dafa mëtale ñépp mëtale lépp mëtale fépp te gis nga foofu liñ ciy jàngat c'est une imperfection lu aju ci droit positif comme mëtalewul lépp loolu day tax recours à la conscience day nekka farata pour mu combler lakkin bi parce que mëtalewul lépp législateur bi lu mu xarala xarala dina am faay donc conscience bi defe naa ni dinañu dimbali pour mu fàtte buntu yooyu ñëw na ci question wu ndax loi farata la wala du farata mën na ñàkk war moom jël na ci position parce que wax na ni lu dul bokk nga xam ni nit moom kot mooy dund bu boobaa mën na bañ soxla loi te li am mooy nit nitu pénc la mook ay moroomam ñooy nekk ay relation am te relation yi faw ñu wut nuñ ko tërale euh, ñëw na ci diggante luwa ak conscience te mu firee ko xel bàyyiloo na xel tam ni mu yaatoo ak ni mu xóote ak ni mu jafe waaye indi na ko ci wàllu théorie wàllu xalaat rek mu génnee ci ñaari école école bu njëkk bi dañ jàpp ni te tudd na ci Ibn Rushd ak taxawaay bu rëy bi mu ci am école bu njëkk bi dañ gis ne conscience moo féete kaw loi kon loi balaa jag balaa nu koy mën a nangu na niitoo conscience boobu te loolu moo jur xalaatkat yi gëm ne dafa am benn loi bu naturel bu yàlla rëdd ci yëg-yëgu doomu aadama mu féeti kaw luwaay yi ñuy bind luwaay yi ñuy bind bu méngowul ak luwaa boobu sañ nañoo lànk topp ko te lànk topp luwaa bi mooy li mu wax objection de conscience bu mu fi mënul jële luwaa bi kon bu ko kenn appliqué ci sama kaw benen école bi moy positiviste yi d'accord nañ sax né conscience mo fété kaw mais du ñu nangu ba mu jeex mu nekk delluwaay bi nga xamné loi positive bi falay lay sës parce que néna xel da bari té wuute ñom nak mom junju na gravité bi nekk ci position boobu ndax dañu wax ni loi bi buñ ko xisee teg même bu mànduwul dañ ko war a topp ñun ñëpp xam nañu ne euh, Socrate dañ ko tuumaal ci kaw luwaawu réewam ne ko dafa yàq ndaw yi te booba li muy wax ndaw yi pour ñu am conscience politique bañ li ñu war a bañ moo neexul gouvernant yi mais comme sur la base de la loi positive bu réewam lañ ko accuser mu ko parce que bañ ko jugé ba war ko garde pénitentiaire préparé l'homme nañ ko mu mais dafa ni du daw parce que li ñu teg ci loi réewam la bien que loi bi mandoul, mais daf ko donc c'est une application bu dëppoo ak lii mu wax fii ne ñoom ñoo dëgëral naziste yi loi yenn naziste yi tëral c'est des lois positives même bu vous bu dëppoowul ak conscience mais l'orientation école bi moy dañ ko Si vous avez ci application une relation une pratique ci wàllu pratique ci diggante conscience ak ak loi vous na ci ci la tuddé objection de conscience vais vous joxé ci exemple yu bari ba ñëw ci bilal ban loi la bilal don bay, xam nga ñi bugul ñi mbugal bilal dañu amoon pouvoir parce que ñi gëm dañu nekk nele tollu ci di ñàkk doole boobu ñi ëpp yore won kàddu gi di doxal li ñuy doxal di tëral luwaay yi nit ñi war a dunde ci penc mi mooy ñi weddi donc il y avait une loi bu waxone ken kenn waru fi gem yalla ken waru fi gem yonent bi loi bobu nak le Bilal don def objection de conscience ba tax liñ ko don tek mu di ko mais mom bañ na ni loi bi ken du ko appliquer ci kawam parce que dina gem yalla gem yonent bi cité na ci ay exemple ci mouvement bi amone Amérique ci affaireu xeejeeg sen bi amone digenté nit ñu ñuul ñi ak ñu weex ñi ñëw na ci Gandhi ak ay taxawaayam fële ci Afrique du Sud mais mu ñëw ci laaj ay laaj lu dellu ci ñi ñooñu nga xam ne dañuy muur seen yaram ba mun a këpp dara du feeñ salaamaaleykum mbokk yi maa ku nekk ci turam ak santam euh, di gërëm Moustarchidine yi nga xam ñoom invité eh, wane ni itam bi yoon dama ñëwee ñaari tànk xam naa ni yàgg eh, naay ñëw ci université Ramadan tey jii nag rax ci dolli bi ñu moo waxee ni suma xarit suma mag Ibrahima Fall moom mooy def conférence bi di leen ñaanal suñ Moustapha ak yéen ñi fi nekk yéen fan wu gudd affaire bi gën di law man nag euh, Ibrahima di ko gërëm ci conférence bi euh, ñoo bokk mbootaay bi nga xam ni dañ ko tuddee taxaw temm ngir jubanti jubal naatal senegal ñëpp xam nañu dëkk bi nekk na ci ay jafe-jafe at bii di ñëw nit ñi bëgg nañu am président de la république bu nga xam ni dina indi jàmm ci réew mi ak naataange loolu itam gën a féddali suñu ànd ay tey jii xëy na affaire politique lu tax sax ma ciy wax lu bare comme damay jàngale fële ci université moom ak sëriñ fay yëpp ay juriste lañu affaire yoon la ñuy wax dama bëgg ci waxtan wi rek wax ci ci mbirum histoire ndax man histoire lay gën jàngale mbirum mbirum et e gis ni yoon dëgg la nañu ci wolof sax Ibrahima wax na ko Sëñ Fay wax na ko dañuy ràññale sanc ak dëkk nit bu ñëwee sanc fenn rek doo dégg mukk ñuy wax yoon wa def na lii yooyu waaye bu ñu demee ba ni fii dëkk la walla réew la nga xam ni nit ñi xaw nañ fa yàgg tuuti fu mu jaar am yoon faculté de lettres laa nekk ci làkk yu bare boo seetee li ñuy wax yoon dafa fekk nit ñi dafa mel na dafa am lu ñu sàkku dem ba ci biir nar a xuloog di xeex ñu di xàll benn yoon du loolu rek musiba am boo ko seetee ci wolof grec jàng naa grec baat bi yoon la itam tekki maanaam ay nit bu ñu amee ay jur nar di xuloog di xeex xamuñu ku ci nekk fan nga war a gubi kii xamul fu mu war a yem rek histoire day am ñun sax sunu senegal gi ñuy wax wolof nee nañu njaajaan njaay mooy sunu maam waaye njaajaan njaay boo seetee léeb bi ba ci biir ay ñi di doon xuloo affaire jën nu ñu koy séddalee ci dex gi loolu moo indi yoon ay nit bu ñu naree xuloo nar a xeex histoire nar metti eh, fu ñu jaar am yoon loolu tax dëkk bu ñu nee dañu dëkkandoo bu mu jaar am yoon loolu daal laa ci bëggoon yokkute mënoon na ci gën a dem waaye lu am maanaa la anglais yi def nañu làkk boo dem daa daañu def différence bi anglais yi dañuy wax settlement boo demee dañuy wax la city bokkul ak town du benn parce que fële dafa indi ay loi am ak ay règlement dëkkandoo fenn di rek taxul ma bëgg itam yokk ci waxtaan benn histoire bu nga xam ne dafa xawoon fii Sénégal pour euh, renforcer li Ibrahima wax président Houphouët-Boigny bi mu gaañoo dafa fekk tag boobu maa ngi yëngatu ci association yi man ak ñoom Alioune Tine ñoom maam Adama ñu daal di yeewu booba dañ ni Côte d'Ivoire ambassadeur bi fi nekkoon mu ngi tudd Salif Ndiaye professeur d'université xam na yoon xam na loi ñu jóg daal dañuy dem seeti ko pour wax que eh, professeur defal ndànk parce que lii ñu gis Côte d'Ivoire bu ñu deful nank danañu di musiba mu recevoir ñu ni ñu lan la ñu ni ko ah, yéen de seen dëkk bi fi ngeen jëm baaxul dëkk bu ni tey jii nit mun na nekk ambassadeur fii yow Salif njaay njaay nga sant mun nga nekk ambassadeur waaye mënoo nekk président de la république ndax loolu xel nangu na ko xam nga lu mu ñu tontu. oui, mes collègues, vous avez raison, mais vous savez, dans mon pays, hein, la loi, c'est la loi. La loi veut que, euh, bon, moi, je ne peux pas être président de la République, mais je peux être ambassadeur au Sénégal. Nous avons dit que nous avons deux heures de temps, trois heures de temps, de Nous sommes deux jours après, Robert Gueye m'a fait coup d'État. Nous avons fait Robert Gueye a fait coup d'État. Ce qui est top, c'est que nous avons fait Côte d'Ivoire. fi fi mu mujj kon xel itam lu am maanaa la am na yu muy tax nit ñi gis ko waaw foofu euh, ak yeneen yu nga xam ne am na suma xarit bu nga xam ne ñoo bokk ak idée ci politique yu bare benn bés affaire Algérie am ñu dem élection yi Algérie fils gagné mu ne ma man daal boobu ma daal daal d'accord naa ci lépp waaye daal vraiment euh, ñi islamistes yi jox leen pouvoir bi daal doy na waar a critique ma ne ko ah organiser élection ñoom ñu gagné nga ni ñoom duñ jël pouvoir ah dañ seet bu yëfi fu muy mujjee na mu mujjee boobu ba léegi Algérie mu ngi ci fitna ba léegi yëfi dalul kon xel war na may nitam nga xam ni ñu def foofu laay daaneele laaj Ibrahima ki benn question ndaxte comme xam naa ni itam li tax Ibrahima ñu ànd ak moom affaire jàmm ci réew da ci baax Congo tang ba mu fa nekkee. mom la Nations Unies yoni muy dem di delusi ba Guinée ba bon bu xel ak yoon dañu féwelo nan lañuy solution bi wax sax référendum dama bëgg mu ñew ci jafé jafé yam Sénégal comme li ñu am Sénégal ciow lu bari li les wad ndax warna war mais lu def référendum sénégalais yi parce que ñoo jëm ci fitna bu fi dem ci élection lutax duñu laaj Sénégalais yi nañu laaj Sénégalais ndax ñen ñoo d'accord pour mom sax mu nekk candidat ak loolu mën nañ ko organiser boobu élection la ñu war a jëkk def wasalaam ma yem foofu. professeur Mounirou Sy bismillah Babacar Dembélé na waajal. alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, monsieur le doyen euh, man moom laa lay woowee ndax euh, duma la oser apostropher pour plusieurs raisons mais ñaar la ciy jàpp bu vous êtes le maître de mon maître ndax ku ma xam xam nga ni Babacar Kanté moy sama maître te Babacar Kanté yaay maître am ndax amna ben rencontre buñu amone ci Ngor diarama. dans le cadre du réseau des du réseau africain des constitutionnalistes Maniko, je suis avec le maître de mon maître mu nangu loolu te yow itam weddiwuloo ma xam ni kon loolu am mais bi ci tegu mooy euh, dañu am chance am la tay fi ndax ku nekk université xam nga ni bu mois d'août jotee ñëpp dañuy dem def recherche à l'étranger ba tax na biñ ma joxé programme mu bi ma gis la ci ci la pousse sama départ pour mën assister ci sa conférence ndax dafa jafé man am naa dem Genève dajanteeg benn femme bu ñuy wax Mary Robinson mooy première femme présidente d'un pays moo njëkk a nekk ku jigéen ku jiite réew mu nekk dëkk bu wax Irlande boobu yaa New York moom mu nekk haut commissaire des droits de l'homme ñu bokk ascenseur fekk ma fa doon defe stage mu ni ma where you from ma ni ko From Sénégal mu ni ma ndax xam nga ku ñuy wax Ibrahima Fall ma ni ko waaw mu ni ma mësuma gis ressources humaines bu mel noonu bu jógee ci moom dafa grave parce que Irlande mooy pays bi gën a développé ci Europe France ak yàcc teg leen raw ka leen jiitoo woon waxul ni mësuma gis africain bu mel noonu de dafa ni musuma gis ressources humaines bu mel ni moom c'est-à-dire que cee boole sax irlandais le premier ministre de doon le ministre de boobu à l'Académie internationale de droit constitutionnel au Tunis nga xamante un membre fondateur nga fa été créé en 84 euh, dafa femmes de grands intellectuels qui ñuy euh, euh, Rafa Ben Achour Didier Moss, intellectuel qui mag la France ak Michel Troper ñoñu bo tuddee Ibrahima Fall da nga leen gis ñu changé ci walu respect bu ñu am ci mom motax biñ la je dis que le maître mot a été bien cerné par le mot du maître ndax man bi ngay commencé di wax je prenais note parce que cours magistral la c'est l'élève qui prend un cours te li ma ci gën intéressé moy bi nga romain son nga xamante ni Serigne Cheikh mi ngi koy wax sax nee na Ibnu Tufayl moo ko njëkk a bind ci arab te nee na ki ci gënoon a ki ko gënoon a mokkal mooy euh, sa maam Saybatu Fall moo leen ko doon jàngal ci Tiwaawan pour wax rek nii yooyu savant euh, islam islamique wala musulman yu ñuy fàtte war nañ leen di boole waale suñuy recherche ndax ku mel ne Ibn Rushd ñu xam ko ci Averroès thème bi nga koy abordé jot naa ko liir parce que dafa am relation ak philosophie am motax mu ni la loi est un mal nécessaire ndax lolu philosophie traditionnelle ñoko doon wax mom dafa ni sax ça a été repris d'ailleurs par euh, Jacques Généreux qui livre bu bees bu mu bind temps yi la dissociété wax la loi est une nécessité heureuse mais ci bu fekkee ni conscience da ko nangou motax ñu ni comme la loi est une règle de droit mu ni mom règle bo xolé boo woolee woowee xale bu ndaw ni ko indil ma règle daf lay indil règle te loi règle la maanaam day tracer ay ligne ligne yoo xamante ni ka teg ci kawam waru ko dépasser moo tax ngay buur di bumi di sujet di ko mën a doon am na ay règle yu la tënk yoo xamante ni waroo ko dépasser te xëy na xale tax doo ko ñeme dépasser mu mel na Afrique bu ñu xoolee bu baax théorie du naturalisme bobu nga xamanteni ni xel a ko tënk ca gannaaw positivisme bi daf ko commencé nëpp ba ñuy sukkandiku ci lolu ngir faagaagal àqi adama te fa la bëgg dugg ak yow maanaam euh, loi à conscience fan la ci droit de l'homme di fété ndax ki ki définir loi fa lay jeexale ci théorie du moderne c'est Jean-Jacques Rousseau mo ñu wax ni la loi c'est l'expression de la volonté générale mais volonté générale boobu ci assemblée nationale lay jóge en général boo la définition organique bi loi mooy texte bi l'assemblée. ci assemblée bu qu'il ni a une assemblée est-ce la nous sommes représentés ñëpp xam nañ ni depuis une quarantaine d'années les députés représenté tuñu askan wi mais seen parti politique la ñuy représenté wala ñuy représentés que jiite parti ba kon bu ñu waxee ci turu askan wi askan wi du ñu gis la ñuy la ñuy wax ci ñoom may laaj bu nekkee Rousseau dafa bind ci dernier chapitre la religion civile manam bisni ni ki tey gëm leen loi loi boobu bu ou ak li askan wi bëgg est-ce que taxawaayu Bilal du war maanaam li ngay désobéissance civile ma gën ko gis sax ci li ñuy résistance à l'oppression nga xamante c'est le quatrième des droits de l'homme bu article 2 de la déclaration des droits de l'homme est-ce que par moment bu fekkee ab état africain dafa ñëw ci le positivisme wax la loi bi existé bind mu neex mu bind nañ ko est-ce que bu da vous violer ce droit de l'homme waro def résistance à l'oppression bi nga xamanteni droit de l'homme aussi waaw lolu que sama laaj euh, jërëjëf professeur ñu Babacar Dembélé euh, Ndiaye artiste السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناو بني سانتة بروفيسور تي كورب أم سولو بي موني دفال. دفام نياري لاتي ركي موكو بغل لاتي. جيس دينستركسيون دف ما كونوكي منيو تي بن شيف داكيزاسيون فلاغران دلي. ليرل ما شيف داكيزاسيون بي نو وقتان بباري. مانيكو sa ak yalla est-ce que am na loo ma mën ci li mune ne ma bu ma booleeg yàlla may laaj fof ndax serment serment bi mu prêté ak dey lëkkaloo conscience religieuse bi wala dette. ndax serment bi mën remplacer fof conscience bi wara war sukkandiku pour atteindre nit ki wala déet moy sama première question sama deuxième question le modèle ci débat qui est actuellement te mu de constitution et l'interprétation interprétation la candidature Wade ci recevabilité ou la dette. may laaj le débat bi de est-ce que le conseil constitutionnel compétent pour valider la candidature uniquement uniquement les critères de sélection et candidats wala mën na àgg au fond au niveau des mandats loolu laa bëggoon laaj ngeen baal ma àqu salaamaaleykum wa euh, Serigne Ndiaye mu waajal asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu di di jégalu di feddali

be tok yiñ daan tok ñom ci vacances yu jot bu ñu vacances ci Tiwaawan ba waj bay ñibi tok gañu tok ci kanamu Serigne Babacar si limu woor moy tok bi mu tok fi te ñu gémmee ci kër Serigne Babacar si ci Serigne Cheikh di len tété ak àndandoog gu andandok Serigne pap malik si ba niro ci lepp

association Bobo, man dem naa ci ba nek président ñu dit o Serigne Mansour si ak Serigne Moustapha ñuy am ay 14 ans 15 ans di def suñu conférence annuelle islamique à Nous ñun bobu ñuy 4e quatrième e bobu sax ñun dañuy yéen association bi ni rek Serigne Moustapha ak Serigne Mansour ak suñu yenen xarit Cheikh Tidiane Sam di defal conférence islamique mais loolu li ci Serigne Cheikh wax ci ndaw googu ah, si un jeune pouvait renoncer à sa jeunesse pour se consacrer uniquement aux exigences de sa maturité ay ndaw te ñoom sëñ Moustapha ak ña ñu ko nekkaloon ak ña ñu fekkoon ci yoon wi gën na seen ndaw ak mage maanaam nangu responsabilité taxaw mottali li nga xam ne am nañu ko fi dooroon moo tax moom ñëwum fii dafay c'est affectif dafa anda ak yek yek dafa anda ak tofel dafa anda ak kóllëre mais dafa anda ak matalé yoon ni ñu ko gissé ni non rek la mo samel tor fa kala dan na xey koñ ba yépp ta nek doyen koñ ba yépp te fooñi mu jël rato rato koñ bi yépp ah tax ngi sant tamit

comme nee nañu loi boobu nanguwuñu ko man bokkuma woon ci ñu nañ doon jugé mais maa ngi ca saal ba mais ba léegi jugement jibul kii bokkoon na ci kii buba buba mii bokkoon na ci ñu doon jugé waa daara ji la ko bokkoon ba léegi jugement jibul rabun tabaaraka rek ba ne waaw kii euh, kii ñu ñu génn leen xam nga Cheikh si El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu tubaab bi dafa ñëw ni ko seen Cheikh dañu ko nettali ni ko waaw euh, euh, baykat yi ni ñu yàqe seen alal ji ginnaaw bu ñu bayee ba pare ba jaay ni dama bëgg nga wax ci El Hadj Malick ni ko radiyallahu taala man lool duma ci wax parce que loolu mun ma ci wax parce que bala ma ci mënoon wax mu fekk d'abord njëg ga ñu jaayee fekk ñoom ñu tànn ko Euh, sëñ sëñ Cheikh bind di wax mu ni xel ak ruux euh, euh. ngeen baal ma tuuti mu ni ruux ak ngëm jibril dafa ñëw ni leen uy leen suñu boroom ruux ak ngëm ku nekk mu fokk la ci ruq ni la uy suñu boroom ñu ni ko ñun demuñu ñu dem ci suñu boroom mu ni ko demal nga ool ma xel mu ñëw ni xel uyul suñu boroom xel génn ci boksam dem di uji suñu boroom ruux ak ngëm topp leen topp ci jibril ni leen mais jibril mais mais yéen fu ngeen jëm ñu ni ko dañuy dem mu ni ko mi léegi laa leen oo ngeen bañ ñu ni ko

waaye buñ la war a jugé te xam nga fekkeeguloo ko maximum lañ lay teg mu ni waaw baax na comme reconnaître ma ko reconnaître ma ko li may laaj nag mooy dañu bëggoon te Serigne Cheikh wax na ko mu ni réew mi légitimité gëj na fi depuis 2001 wax na ko gàmmu daaw mu tegaat ci ñaar yoon di wax ni réew mi faw ñu sang ko faw sangko sango, ci xol bu rafet wala ci deret ñu poser ben problème té man li ma jaaxal moy mom ci correspondance mag ak euh, Ablaye wad en 94 daf ko ci wax si les folies du monarque mok ko Ablaye ba Ablaye du ko tontu bu ñuy indi waxtanu Khrouchtchev ak Nasser nous ñu aujourd'hui sur les folies d'un roi de monarque Nous avons taxawaay yoo xam ni yaakaar nañ ni nit ñi mun nañu pour indi benn bi dafa am daf lu ëmb suñu le problème est libi nga parce que sëñ Cheikh dafa wax ni dañuy wax ay droits de l'homme mais il faut plutôt parler des droits de la personne mu état de droit il faut plutôt parler des droits à la vie aujourd'hui par rapport à Libye. ñun dafa mel ni àdduna bi ay loi yu bokkul ñoo fi nekk pour atte nit ñi ak pénc yi fan lañu teg ba tey bunduxatal bu mel noonu donte am na yoo xam ne ñu ngi koy jiiñ ma yaakaar nañ ni bëggoon nañu comme taxaw nga foofu jàll nga fa ci droit de l'homme fu nekk commissaire nga dimbali ñu indi ñu sa ay xalaat foofu ngeen jégal ñu tabaal ñun nag guddal bi jërëjëf ñu ngi woo suñu mbokk Pape Moussa Ndiaye suñu dernier intervenant du jiite mu waajal te ñu ñaan rek ñu gën a gàttal kàddu yi ndax waxtu wi dem na te professeur bu sañoon am temps bu xaw yaatu. asalaamaaleykum xam naa ñu ngi jiital ci nuyoo bi suñu sang suñu kilifa Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may ndam ci projet yi nga xamante ne bii sumb na ko yàlla may ko mu yeggal xam naa di sang tamit ki nga xamante ne bii mooy professeur bi xam naa di wax ni dina jafe sax ci ñun. ñu jël kaddu fi nga xamante ne bi mooy ci ci tribune bi ndax ay ndongo daara rek luy liifantu lañ mais dañu amoon ñaari question yu ñu bëggoon a laaj bu njëkk bi mooy est-ce que gisuñu ni euh, professeur léegi wax na ko mu niiru mooy li nga xamante ne bi mooy ci ci député yi ñi nga xamante ne bi ñooy euh, législateurs yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci assemblée yi gis nañu ni euh, ndax gisuñu ni phénomène majoritaire bi nga xam ne moo am ci assemblée yi léegi

dañoo jaar ci suffrage universel direct ba fal mais léegi ki nga président bi nga xam da koy wax Serigne min ko ci ku ëmb sa ëmb mais loolu dafa leer maanaam ki nga xamante ne bii moom la fal daal moom daal moom moom ngay bàyyi xel ak lépp loo xamante ne bii ci première ce phénomène majoritaire supprimer pour éviter li objection de conscience benen question bi mo delu ci li nga xamanteni bi moy ndax du jar ñom ñi nga xamanteni ñoy législateur yi nga xamanteni bi euh buñu waxé volonté générale pour ñëpp la ñëpp moy ñi nga xamanteni bi ñom lañuy teureulal ay loi ndax du jar ñom législateur yoy ñu utal leen code de conduite ndax du jar ñom législateur ñu utal leen benn yoon buñu wara war jaar li tax lolu moy da ngay gis tay ñu né député sangam mbéj na député sangam bir assemblée est-ce que bi taxoon tey ñu fal ko ki nga xamante bi yow da nga représenté askan bi yëpp nga représenté ci benn di xeex ngir askan mais léegi xeexatoo sa ak euh, xeexatoo ngir askan bi mais da ngay xeex pour benn benn benn parti wala benn kuréel donc ñu xool li nga xamante bi Youssouf wax na ko sérieux ak compétence bi ndax jaratul léegi ñu xool ci sérieux bi ak ci compétence bi te bañ a bàyyi ci nga xamante ni bi mooy loolu ngeen baal moo àkk ci kàddu yi wasalaamaaleykum. merci beaucoup. Mamadou Jité. salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di leen ziar. di jéetal ci nuyoo yi ak ziyaar yi suñu kilifa Seydi Mouhamadou Moustapha Sy di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla aar te mottali yéeneem ci réew mi professeur ñunu du ñu def ay contribution mais ay laaj ak yenn yu ñu xaw a jaaxal bu njëkk bi mooy bi ngay tudd ci wàllu ñi théoriser ci loi et conscience wax nga lekkool du positivisme bon man li ma ci jàppoon moo tax ma ciy leerlu moy positivisme dafa am ñaar xamni dañ ni positivisme étatique mo am moy li nguur gi tëral comme yoon ak ño xamni dañ japp ni yoon bi ci société bi la jógee donc sama xel may ma ni ma kon comme yoon bi ci société la jógee donc war na dëppoog ñi nga xamni ne dund ci biir société li ñu gëm ak seen conscience comme niñ ko waxee ci thème donc est-ce que bu boba fofu damay leerlu est-ce que li nga xamni moy société bi bu fi que fa la yoon bi jógee normalement kon dafa war dépôt de conscience su vous ñi bu dépôt dëppoowul le conscience nit est-ce que vous pouvez avoir mën nañ ko de positivisme c'est première question deuxième question bi mooy bu ñëwee ci cadre Sénégal loi professeur wax na le cadre organique assemblée mon voter parlement donc ñu am un problème au Sénégal mooy ñu am parlement la am chambre benn bi nit ñi avec une légitimité bo xamni sax déficiente bo xamni boycott bi du ma ko fàttali benn bi président bi ñew teural ko bopam ñafa nek 60 yi mo leen di fal te loi boy jël Sénégal il faut mu jaar ci ñaari assemblée yooyu est-ce que bu boba li Rousseau tënk té professeur wax ko ni c'est l'expression de la volonté générale est-ce que bu boba loi mën nañ ko jappé expression volonté générale est-ce que du jaar benen définition té tuddu nga ko sank ci réew yo xamni la plupart du cas nit ñi loyer leen di àttee dafay mel ni dëppoowul ak la ëpp ci réew mi lañu xalat ak la gëm est-ce que bu boobaa définition Rousseau bobu est-ce que c'est toujours valable war nañ ko xoolaat fi may mujjé moy té mbokk mi euh, mi ma jiitu sànq wax na ko mooy ki nga xamni moy adopter adopté loi muy député koku digëntém ak conscience am ak compétence ban relation mo dox ci digënté conscience et compétence parce que ñun suñ député yi ñu am wax na

indi lim uh, uh, ci wara tek professeur bismillah jërëjëf dam bëggoon ci euh gërëm ñi nga xamni ñi euh addu nañu ndax ay la yewen waxtaan bu neexee dañoo weesu waxtaaj waxtaaj mooy ku nekk wax rekk dem sa yoon waxtaan nag mooy ku nekk wax ba noppi nit ñi jëggaani ci li nga wax yooyu tam nga jëggaani ci li ñu wax kon nag maa ngi rafetlu waxtaan wi ah buuba laaj na ndax su fekkente ni yoon ak ko ak xel dañu juumoo ndax waruñu laaj askan wi ñu àtte ci loo xam ne lii référendum lañu ko tuddee Eh, xam nga référendum moom faw mu am ci ku ko sooke eh, ki koy sooke nag bu ragalee ni bu ko defee la mu ci bëgg du ko am eh, xam naa boo ko tancul lool day <laughs> du ko def Euh, rawate nag bu demee ba naan léegi dañuy soppi maanaam tërilinu palug njiitu réew mi ba teg ko ni su fekkente ni téeméeri nit ñooy tànn bu ñaar fukk yaak juróom tànnee doy na ndax loolu moom firnde la bu wóor ci ni moom mi laaj loolu xam na ni mun la weesu loolu kon xam naa du kooka mooy def référendum eh, professeur Mounouris Mounir aussi place place place droit de l'homme dignité loi et conscience droit de l'homme dafa la loi et conscience ndax boo la déclaration des droits de l'homme euh, li nga xam ne lii ci la sësu moo di fésal nii nit ku nekk ca teguñu ko ci benn xàjji ak seen nit ku nekk yàlla daf la jox xel jox la yoon teg ko ci ñu yamale t'es te loola cib juddu ba ci dee kon droit de l'homme maanaam e dafa boole loi à conscience

ni droit de l'homme war naa tax ñu def nakasudul noonu booba xel sëy na naka noonu ku ne xam na ko te loolu léegi moo am ba noona sax nee nañu loolu bokk na léegi ci droit de l'homme ba tax na euh, désobéissance civile moom du na a ñàkk ndax bu fekkente ni jël nga sa matuwaay yépp teg ko ci yoon nga dox ñaxtu yëngu-yëngal kenn bëggulaa déglu ñàkk pexe pexe la war nga mëna dem ci désobéissance civile ndax loolu moo taxoon suñu mbokk yu ñuul yi nekk amérique nga xam ni martin luther king moo leen jiite woon dañu joytu fu nekk kenn dégluwu leen ñu mujj ni daal ay la yéwén pesum kanam daal borom a koy loolu motax ñu def des obéissances civiles ah amoon na ci nak ay choono yu bare bari waye sen pastef ak sen taxaway taxna ba finalement racisme jógee Amérique Babacar Dembélé laaj na laaj bu am solo waaye man li ma ci xalaat moo di kookee doon àtte daal yoon may na ko bu fekkente ni yoon moom ci xalaatam sellul mu àtte ak xelam la conviction du juge kon war naa mën a am xelum su fekkente ni ci liñ la jàpp gisu ci lenn loo xam ne lii mën na cee tëral sa njàpp waay waay mu bàyyi la nga dem am na fi dina fi am beneen yoon lu tax defu ko ci yow laaj nga ma ndax kilifa rew bi fi nek bu fekente ni dem nañu ba ci conseil constitutionnel manam kuréel gi nga xamni ki moy nat ndax ñi bëgg samp seen ndënd war nañu mëna samp seen ndënd ndax dafa wara yam ci li nga xamni li yoon may na ko ko ndax bokk na ci loolu mu dem bay xool benn ñaar walla ñetti mandat tontu bi xam naa professeur Mounirou Sy mën na la koo jox moo di ay la yéwén suñu conseil constitutionnel njaay mu ni yoon yi ma yoon yi ñu ma teg mayuma ma tontu ñoxor njaay rek mu dem wax loolu et am na yeneen conseil constitutionnel yoo xam ni yii donte sax yoon leeralu ko ñoom ci seen bopp am nañ teg nañ ci seen bopp sañ-sañu seet ni es ndax lii war na tegu ci yoon walla warul tegu ci yoon ndax ñoom dinañ ko ñeme yoon wi ah loolu day kenn xamu ko euh, defe naa ni dina jafe ñu bañ a tontu ci mbiru màndaay ndax buñ ci tontuwul daanaka seen njariñ moom dana nasax ah Serigne njaay moom indi na ay mbóot yu doy waar ah wax dëgg yàlla day ñu ngi fàttaliku bu baax sëñ Babacar Sy maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee cm suñu jàngalekat

loolu lu néew la ci loo xam ne lii souvenir la ci moom ndax gannaaw jamono boobu moom ajjuma bu nekk da daan doxi këram ba jëm ci jumaay yi ñu ñu daan jàng ci école 1 ñu ñëpp dañ daan nekk ci tali bi pour bu ñëwee ñu koy siyaara di ko nuyu kon mu mel ni loolu moom xéewal bu rëy la woon fàttaliku nga itam suma ak pap Malik si ma ngi la geureum gërëm eh, wax deug yalla digante ba bes bu nek da fay gëna yok ndax jamono may jang alquran keur soxna malik da nañ faral di daje jamono may jang école daanañ faral di toog di waxtaan ba fi mu nekk e, tubaarkalla tubaarkalla xañ naa ñëwuñu fi pour loolu waaye daal ginnaaw wax nga ci tuuti rek ñu wax ci loolu yem ci sëñ Moustapha ak sëñ Mansour nag seen yëngutu moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafet lu te yàgg na lool ndax yaa ngi koy fàttaliku bi ñu amee ñoom ay peut-être quinze ans avons defoon une troupe culturelle arabe daanaka natt ko ci GIET bu ñu yëngutoo fii ñu yëngutu et e suñuy wante fañ taxawoon taxaw nañ fa fa mat mat ko del mat ko et ba moo ñu indi fii tey ndax damay wax ni université du Ramadan léegi tradition la te tradition bu am solo la ci ndaw yi ndax fii defe naa ndaw yi ñoo fi ëpp te ndaw yi ñoo ëpp ci Sénégal kon nag di leen wutal béréb kuréel waxtaan boo xam ne bii dana yokk seen diine yokk seen xam-xam ci àddina yokk seen taxawaay ci citoyenneté loolu amul moroom ba tax na moo tax ñu rafetul woon ca njëlbeen bi ñuy wax université du Ramadan ndax yàlla daal moo leen mën a fay yal na leen yàlla fay droit de l'homme et droit de la personne droit de l'homme français ils wax ndax déclaration de 1789 avons fait le droit de la personne la wax ndax jigéen ñi sax ci seen bop ñom ñoo jëkk fippu ni ñu homme tax canadiens ñom droit de la personne la anglais itam human rights lañuy wax eh, moo gën a jub moo gën a jekk kon nag noonu nga ko gisee noonu la mbiru Libi wax nga ci lu am solo ndax ku gis ni mu deme gis ni siiri deme gis ni yeneen réew demee xam ni am na xàjjeeg seen yamale wu yëpp te li am ba des daal moo di am na kilifa gu mag gu France gu tudd Charles de Gaulle nee na les nations n'ont pas d'amis elles n'ont que des intérêts loolu nag faw ñun ci Afrique ñu xam ko parce que dafa doyadi ñu naan diw xaritu Sénégal la diw xaritu France la diw xaritu lii la ah man de am na jamono ma dem ci benn réew ñu wax ma mbiru Sahara occidental ni ma ndax yow pro marocain wala pro algérie man je suis pro droit il faut ñu nous ci li ñu nous teg ba faaw ñu am kilifa gu jóge bitim réew maa ngi fàttaliku waxtaanu Serigne Cheikh boobaag léegi peut être il y a 20 ans 25 ans mu daan wax naan dafa am koo xam ni kii daf ko doon wax naan ñaar ñoo doon waxtaan kii naan ko man daal eh, sama idol dal, mooy Stalin. alors ki ci des di waxtaan ak di ko wax am ni ko man daal xam kan mooy sama idole mu ni ko ah mu ko saaku ñam bi eh, ndokk nag léegi am nañu ay mbër yoo xam ni ba fi mu nekk ay idole lañu dootuñu jëggaani ay idole ay idol Ndiaye njaay mu wax moom daanaka tontu na laajam ndax bu ñu demee ba député naan man député président la kooka xamul lan mooy député est-ce que ñooñu war na leen wutal code de conduite ah lu mat a am la de jekki bay gis ay député ñuy songoo daal ak di pesante euh, man de defe naa ñooñee dañ leen waroon tekki seen ndomb ka nga xam ni moo tooñ Waron nañ tekki ndomboom waye nak eh violence de du fi lu bess ñu bàyyi ci xel ndax fi jëm suñu violence dina dugal réew mi ci guta bo xamni bi ah réccu day lay jur ba tax na war nañ taxaw thème lépp lu ñu y a def ba yàlla sàng ñu sutura may ñu jàmm ñu taxaw ci Mamadou positivisme étatique et positivisme social xam positivisme moom théorie la boo xam ni ñi dafa mel ni ñu bokk ndey ak baay te bokkuñu jikko la leen boole rekk mooy wëy jur ya waaye boo ca génnee rek ku nekk dangay jaar fi jaar fa loolu moo waral branche bi ci ëpp solo mooy positivisme d'état maanaam yoon daal wi solo moy wi nga xamni wi bicaméralisme avec un Sénat nommé quelle légitimité d'expression de la volonté générale vous avez tout à fait raison je pense que je ne veux pas faire de la politique parce que nous sommes en ramadan mais quand on commence par dire il faut supprimer le Sénat, on le supprime. Plusieurs années après, on le recrée. Et on s'arroge le droit de nommer pratiquement tous les sénateurs. On en fait une chambre d'enregistrement. C'est rien d'autre. Il y a même plus grave c'est qu'aujourd'hui, le président élu, si pour des circonstances variées, il devait être remplacé, il ne serait pas remplacé par le président de l'Assemblée nationale qui est élu, mais par le président du Sénat qui n'a aucune légitimité populaire. Je pense que j'en ai suffisamment dit relation entre conscience et compétence, c'est une question ouverte. Je crois que la compétence, pour être forte, doit s'appuyer sur la conscience. Mais vous avez des compétences sans conscience. C'est ce qu'on appelle euh, des arrivistes, des carriéristes ou des opportunistes. Ils sont très compétents, mais ils n'ont pas d'état d'âme. Tout ce qu'ils font, c'est juste pour profiter de la situation. Donc, il peut y avoir une très forte conscience sans état d'âme. Par contre, dès lors qu'on a une conscience assise, même si on n'a aucune compétence, cette conscience est un guide pour vous. Et je crois que nos parents et nos grands-parents nous ont donné des exemples très concrets. ndax wolof Dafnan Kumar tax kon c'est clair que nit dafay war am conscience dafay wara am jom dafay wara am fulla am lu mu bagn lo xamni li dara lenn du tax mu nangu ko donte sax dañ koy conscience bobu solo compétence je crois que amna le professeur Mounir Sylla bi muy fàttali tej bi ñu ñom Moustapha ak Boubacar ñu ndax amna ay question de Valbonne en France ne pourrait-on pas assimiler les lois comme étant une matérialisation d'une conscience collective spécifique à une culture Ici, je pense qu'il faut retourner à Pascal. C'est Pascal qui disait que la conscience est l'expression intérieure de la loi et la loi est l'expression extérieure de la conscience. C'est quand il y a une assimilation complète, une symbiose complète entre loi et conscience. Mais naturellement, la conscience suppose la culture. Parce qu'on a conscience d'une situation donnée, historique, historisée, et il faut donc tenir compte de la culture. Ousmane Gay Parcel, lorsque l'autorité politique bafoue la personne humaine, n'attend pas, au nom de la conscience morale, le droit de se rebeller je crois que le professeur Monelusis a abordé la question. Peut-être pas nécessaire que je revienne. La déclaration des droits de l'homme est claire en ce domaine. Elle consacre la légitimité de la rébellion contre l'injustice. Est-ce qu'on se sert de la conscience avant ou après l'établissement de la loi la conscience, elle doit être avant, pendant et après. C'est le continuum de la légitimité de la loi. Si elle s'établit seulement avant, il y a des risques de glissement après. Et si elle s'établit après, il y a des risques que la loi ne soit pas conforme à la conscience dès le départ. Ah, là, c'est pas. Dans le contrat social, nous pouvons lire c'est Papa Makone Diara de Rufisque. La loi est l'expression de la volonté générale. Contrairement à aujourd'hui, la loi est devenue instrument politique. Ce qui fait que nous avons des lois diverses et complexes, d'où une mauvaise conscience sociale. Est-ce que de telle loi ne doit pas faire l'objet de désobéissance sociales. Bon, c'est une question ouverte. Chacun peut avoir son point de vue. D'abord sur euh, la capacité de la loi à être l'expression de la volonté générale. Est-ce que c'est une réalité ou une fiction Il faut renvoyer à Rousseau. Ensuite, sur la désobéissance sociale, civique, civile certainement, euh, là également c'est une... Et cette conscience doit nous habiter de façon permanente, quel que soit d'ailleurs le statut social que nous occupons. Omar dafa décidé woon ni jaaykat yi newoon ci benn mbeddu Médine ñoom ñëpp dañu war a dégager ndax mbedd mi dafa xatoon nit ci bu ñuy bëgg doxantoog yooyu muy xat ñëpp jóge fa ba benn jaay jaaykat des fa quelque temps après mu ñëw fekk ko fa ni ko waa yow lu tax nga nekk fi mu bëgg a tontu muy ne jël njaayam sànni ko yooyu njaay mi sànn ko mu dem toog benn ñaar ba ñetti fan xelam ni ko ah waaye yow li nga def kii nga xam ni kii lii ci lay dunde di ci dund ak njabootam doonte sax teggi na yoon wi nga ci teg ndax yow li nga def ànd na ak sa conscience mu fexe ba ñu gisal ko jaaykat boobu mu ñëw mu ne ko ah yow de tooñoon naa la nanga ma baal mu ne ko ah man loolu fàtte naa ko mu ne ko waaw man nanga ma baal rek ndax daal sama xel moom ma yedd ni li ma la def xaj na yoon la waaye sama conscience mayuma ko segam moom ak maqaama mi ko yàlla mayoon moom mooy xalaat ni a ah, def naa lii de war naa ko mën a rëccu wucci ñu baal ma astima ñun loolu moo tax mbir mi yàgg na te xam naa ni ci koor lañ toll te am na ay njaañeen yoo xam ni ba tey reeraguñu ba tax na man tam sama conscience tax na maa ngi leen di balu jërë ngeen ah alhamdulilahi rabbil alamin ñu dellu di ko gërëm xanaa di fësal rekk ni moom bi muy ñëw ñëw na ak jëmmu boppam waxtaan wi def na ko ci yéene li mu fi génne ñépp ko déggandoo xam-xam bu xóot la te leer yal na yàlla dolli sutura dolli barkeel waaye mu ngi ànd ak délégation bu yaatu itam ñi bokk ci njabootu boppam ñii di ay xaritam ñii di ay ñoo xam ne ay woy ndoom lañu ci wàllu gëstu ak wàllu taxawaayu àdduna bu ko defee ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu wax nitam ñu ngi gërëm waa presse écrite bi tudd nañu fi sax euh, TFM di feddali seen taxawaay di leen gërëm ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy ah xam naa pour ñu tëj jotaay bi ni mu ko tëje rek lañ koy tëje ne na conscience am mayu ko mu retenir nit ñi lu gën yàgg waaye mel na ni li mu tëje mooy conscience moo ëpp solo ndax luwaa bi dafa dabe suñu nekk moo waral luwaa bi ñëw bi nu agseegul moom ñëwul woon bi nuy ñëw ñun dañu indaale conscience ñu Moustapha si jàngale ko ci li yàqoon bokk na ci yi gàllankoor diini ji mooy moxlisuuna gayru mutaxassisiin wa mutaxassisiin gayru moxlisiin maanaam ñu am damir ñu am xel am conscience waaye amuñu compétence beneen wàll bi ñu bari compétence lool waaye amuñu conscience moom wax na ni nag am conscience te ñàkk compétence moo tane ba ca des sëñ bi mu koy jàngali wax ni moo gàllankoor diine ji baatu diine ji foofu dégg bu mëtale la ko dégg parce que fii buñ waxee diine ñu ber ko dugal ko ci pantare te fekk diine ëmb na àdduna ëmb na àllaaxira ëmb na politique ëmb na économie ëmb na dundu penc kon li taxoon waa comité scientifique génère thème bi moo di bëggaat avons la loi nous nous koy teural ñu ak conscience waxtu avons koy teural ñu waxtaan ak conscience buñ koy appliquer ñu waxtaan ak seen conscience bu amé ci dégg bi ñu war ko interpréter li ñuy conseil constitutionnel ngir yalla rek ñu ñu jël responsabilité ou dire la loi l'ol une mbokk yi avons yi ci turu señ bi ñu ngi sant na yalla doli tawfiq yal na yàlla dolli najaax yal na université bi di muuru ñëpp te muuru ñëpp la sëñ bi yàlla dolli ko gudd fan ak wér te ñu bokk kook moom asalaamaaleykum ñu jàng fatiha ak salaatul fatiha addi yonent bi sallallahu cours droit bi waaye wolof bi daal séeréer laa def macha allah